conseil des ministres dafa wax dafa annoncé ay mesures euh, par rapport à ces mesures là également ñu gis ci moo wax waxu stratégie nationale d'insertion euh, professionnelle mais également actualiser la cartographie des demandeurs d'emploi euh, président de la République moo waxoon également promettre euh, un euh, million d'emplois ñu bëri jàpp ne que dafa am incohérence peut-être ci lu mu laajte ak lu mu promettre parce que bu fekkee da nga promettre dafa ay évaluation ak ay stratégie daf cee war a tegu waaw non xam nga président moom ba mu faloo ba tey lu mu lu dul ay emploi précaire euh, créé ko au Sénégal te euh, xam nga erreur bu président Abdoulaye waa defoon moom la nekk di defaat cest à problème mu Sénégal nekkul ay agence agence yi seen budget DER bi ñuy wax nii seen budget un milliard la mais banque yi nekk Sénégal ñaata nañu banque yooyu ngay fexe ba ñu financer jeunes yi cest à mënoo nekk ci dëkk boo xamante ni yaa ngi am 720 kilomètres de côte nga am 3 3 3 fleuves 14 dëkk boobu ñu lay naan nappkat yi ñoo génn ci dëkk boobu dem di mbëkk ji parce que yow signé nga ay accord ba yow sa 300 espèces yi nga xamante ni ñoo nekk ci géej gi amatul benn bu ci das Cheikh Bamba Dièye mi ngay wax léegi nappkat day dem maare dellu si du ale sax lu mat ci kilo jën kooku tey situation bi ñuy toll kan moo ko teg ku dul ki nga xamante ne moo signé ay accord te buy signé ay accord mais bateau yi ñuy wax nii bateau canonnier yi ñuy wax nii 2 milliards nga am ci benn. les Idriss Seck yor 7 milliards 500 la mën nga ci am 3 bateaux 3 bateaux yooyu ay sénégalais di ko dem di ko nappi ji di ko jaay ji étranger comme dañu koo bëgg ñu koy transformer ici au Sénégal boobaa Pape Makhtar dootul obligé dugg ci gaal dem France pour jëm di dem foofu di naan day day waas ay jën. wala day dem foofu di di traité ay jën. parce que ici au Sénégal nañ koy defaree mais donc solution yi ñu ngi fi mais kan mooy jël solution yi di ko jéem adapté mais koo xamante ne da nga yërëm askan bi fàttaliku ci période li nga xamante ne mooy honorariat jël benn di ko naan dañu koy jox 4 millions 500 par weer président Macky Sall amul yërmande Sénégalais yi donc ñii lii ñuy dund nii maa tey la mais du ay question de adapter ay mesures bu nekkoon ay mesures rek seen programme yi ñuy wax ni naan dañuy financer ay jeunes ban jeune nga financer bu ñu leen waxee ñu naan ay way dañuy créer ay emploi dañuy fexe ba mais yow problème mu employabilité nekkatul sax ci ñi nga xamante ne dañu yox ay diplôme moom waxu ñu yorul diplôme yi de tey jii nee na ñaata jeunes ñoo fi nekk ñoo xamante ne mën naa la jël exemple Tampro ci mbaar la commencé woon tey jii boo demee ci salon climatisé la mais kooku doo ko jël nga ni ko fexeel ba Médina bii nga nekk nga jël formé ay jeunes jeunes yooyu bu ñu génnee du ñu taxawaal du ñu toog ci bopp kañ ñaata nit tey jii nga mënoon jël fexe ba seen pas-pas nga jël ko traduire que ci loo xamante ne dafay nekk une volonté euh, politique mais duñ ko def dañuy préféré dem jël Baaba Maal di ko may oto boo xamante ne vingt millions lay jax dañuy préféré jël ay privilèges di ko jox ñoo xamante ne ay deux trois quatre personnes la doon Sénégal te nit ñi ñi ngi nekk di dugg ci ay gaal di dem. parce que seen njaboot demuñu déggoo ci président Macky Sall désolé wu déggoo ci kenn ku ciy désolé wu déggoo ci kenn koo xamante ni yéen a yaabi ci lu dul di naan way parents yi ñooy responsable ak ñi nga xamante ni ñooy jeunes yi. on est désolé quand même. Euh, conseil des euh, xam nga xam nga conseil de ministres ak ak bu njabootam nekkoon ci géej gi. doomam jooju xam naa bu duggoon ci gaal gi gaal gee njëkk dig ah, doomam jooju bu nekkoon ci géej gi. bu ne bu dasoon ci gaal gi. bu ne bu dasoon ci gaal gi du def tweet. bu ñuy fàttaliku rek gaal moo doon chaviré fii xam nga dafa chaviré fii ci île Serpent mais président ci condition climatique yu doy waar dafa jël bateau dafa jël aéro xaw ma lu mu tudd hélicoptère dem fekk ji leen xool situation bi parce que ici au Sénégal y a des vies à préserver et des morts à banaliser ñan ñi nga xamante ne ñooy askan bi nekk ci ay conditions yu doy waar ñoom ñoo xamante ni dañu leen wax banaliser ba bu ñuy deewee dañu leen di compter comme ay chiffres te nangu ñuy wax sax chiffres exacts yi donc nee na man je crois lii problème bu Sénégal tey jii du ay agence wala ay kii moo koy régler volonté politique la laaj te volonté politique day commencé ci ñi nga xamante ne mooy homme politique yi mais tant que ñoom ñi ngi toog di calcul en terme de man bu ma faloo naa fexe ba partagé wu au sens propre comme au sens figuré des avantages du pouvoir fexe ba yàggal sama bopp bu ma fiy jógee ki nga xamante ne moom laa yaakaar ne bu ma wutoo dina mën a protéger ma teg ko fi di calcul di nekk ay politicards loolu problème yi ñu am du mus a jeex tey lébu yi nekk fii di dee imagine benn vidéo boo xamante ne benn benn pas boo xamante ne man nañu man man na ma waajur toog di naan bu ma gisee gaal damay dem mbëkk ji parce que man dama doon napp awma lu ma amatuma lu ma yóbbu kër ga ay ñaata nit mm-hmm. tey jii ay xale yu ndaw nañuy jël di dugal ci gaal parce que amatuñu espoir yaakaar nañ ne xale bu demee dee kii alors que Europe ñun la plus de personnes dinañ fa dee par mm. parce que amuñu fu ñu dëkk amuñu lu mu lekk Europe ñun la léegi 17 personnes 17 secondes yu nekk benn personne dina dee ci Covid bi pourtant deux cent mille kilomètres carrés de terre cultivable mais jamono ji li nga ci am sax matutu cinquante mille kilomètres carrés parce que jël nga jox ko ay indien ñi nga jox ko ay chinois ñi nga jox ay yeneen léegi yow situation boobu ñi la ñu fi def lu ñuy def kii kii pa pa euh, Matar pour nga relancer ko rek dafa am lu ma bëgg a wax ma ma relancer waat ko parce que xam nga man euh, j'ai l'impression parfois que vous avez parlé tout à l'heure de cynisme man je crois que le problème est beaucoup plus complexe man j'ai l'impression que parfois est-ce qu'il n'y a pas euh, des raisons occultes ou bien est-ce qu'il n'y a pas des contrats souterrains que nos dirigeants signent avec les occidentaux parce que yenn yi man mënuma ko jàppee iñaan xam nga lu tax parce que dafa mel ni dafa am un rejet de l'intelligence nationale te boo xoolee histoire mais chinois yeeg japonais yi ñuy xeex fii yi ñuy wax bi leen tubaab yi dominer duma leen mais dañoo xool li leen tubaab yi duma muy l'aspect technique l'aspect matériel l'armement mais ñu def jàngi aujourd'hui le Japon ne tremblera plus devant les Amériques bu guerre amoon américains yi dootuñ ko bombarder les Chinois sont en train de devenir les maîtres du monde mais man je vous donne deux ou trois exemples seetaan naa télé parce que jamono bii ñu nekk je suis philosophe mais xam nañ que c'est la science ki mel le monde même si elle la besoin d'être encadrée comme disait l'autre nous sommes devenus la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions des hommes mais quand même nous sommes des demi-dieux am na benn xale gis nga soo duggee ci bus Tata yi machine bi nga xam ne mooy dagg ticket yi nga xam ne da ngay bës mu génn ticket bi mais c'est un Sénégalais qui l'a créé Tunkara invité na ko mu toog ne moom bind na le ministre bind le président de la république jox leen appareil les gens n'ont même pas voulu le recevoir mais est-ce que loolu cynisme la am sénégalais bu defar dara àddina bi yëpp di ko coow nga ne noo man du ma la dimbale ci Covid bi les étudiants de l'EPS mhm. mais créé nañ fi un robot on l'a jamais utilisé dans le combat lycée Valdiodio Ndiaye bi ay élèves defal nañ fa benn machine boo xam ne nii dañ ko takkalante dafay indi ay eau de javel pour raxas les gens ñaar yoon lañ ko wax gisuma sax benn presse bu ko def à la une et pourtant loolu xoolal trésor d'intelligence bu muy laaj pour un être humain puisse entrer dans le cœur du réel créer une machine dans un monde de technologie man là ce que je demande est-ce que réellement au-delà du cynisme bi ñu parce que man mun naa nangu nga fuqale di am ay millions mais pourquoi qu'est-ce que lan la doon wàññi xale boobu tey état bi recevoir oon ko ne ko dix millions ngi nii mais mais mais professeur. est-ce que est-ce que rombul cynisme rek. professeur xam nga li li ci nekk ba nekk ci mooy que ni développement wu Sénégal laa defe ni moo doonul seen préoccupation. mais léegi nag lu tax. parce que simplement ci école politique yi ñu génne ak gis-gis yi ñu am boo jëlee li ngay wax naan les contrats souterrains ak les rapports de domination yi ci amag ak yooyu yëpp loo ci xool rek mi ngi ci biir. ndax wolof dafa ni ku añaane sa dono sa deewin ñaaw xam nga réew réew yi réew yi asiatique yi nga doon tudd la tax ñoom ñu génn ci mooy que ni amatul benn préoccupation wu liggéeyal benn jaambur bu nekk ci biti benn préoccupation la ñu am mooy nan la ñuy fexe ba daan historique yi ñu leen daan di daan ñu faj seen seeni daan yooyu pour jox seen bopp doole ci koom-koom doole ci science ak ci technologie leen war a mën a permettre ñu exister à l'échelle internationale avec toute la dignité bi nga xamee ni un pays normalement ak constitué daf ko war a am foofu la ñu wuute ñi ñuy jiite amuñu projet wu génne ñuy si situation bi pour ñu jox ñu dignité boobu ñu war permettre ñu xam ne ay sénégalais lañu et nous sommes de l'être non pas dans le discours mais parce que si jëf yi ñuy def gis nga tey ji loo ci mënti gis ak ci lu mu ci mënti demee muy ci wàllu développement muy ci wàllu technologie boo jëlee Chine wala nga jël Japon après 1945 bu njëkk ca jamono yooyu matériel bu bon bu nekk dañ naan matériel kii c'est fait par les japonais oh. il a fallu que ñu nu ci affaire boobu liggéey ci au bout d'une vingtaine trentaine d'années ba bu ñu yegg si soixante dix lu technologie fiin fiin fiin fiin balaa ngaa xalaat kenn ni Japon la noonu it la ko Chine taxawee recentré wu sur leurs urgences liggéey ki seen bopp jamono jooju tu te donnes tu devras te donner les moyens ba say contrat pétrolier benn jàmbur du ko ñëw jël yóbbu fooy ndax mënuloo liggéey sa réew te say koppar yi nga am di évaporer wu à gauche et loolu dina la mën a tax tey jii nga def pression bi nga war a def pour que yow sa or bi nga am non seulement que nga bañ ko jox ay jàmbur mais nga wut technologie ak taxawaay boo xamee ni di nga ko ci liggéey ICS ay sénégalais ko créé woon ay sénégalais fa doon liggéey bi ñu koy bazardé fekkoon na actif ak li mu doon signifié mu ngi doon jar presque sept cent cinquante milliards. Ah, mhm. mais dañ koo bazardé mais stratégie yooyu ku koy demee on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. mënuloo nu da ngay am attitude yu demee noonu ba pare sa réew di développé. y' a un minimum mais alors dans ce sens pourquoi ñuy ñuy tey jii le consommé local wala pourquoi ñuy euh, wax waxu secteur privé national comment faire pour développer tout cela alors que ñu ngi am euh, attitude il faudrait que d' abord ñu gëm suñu bopp il faudrait que ñu xam ni. ensemble on doit pouvoir s'en sortir il faudrait que ñu ñu jiite maandu seen loxo set te ñu am benn obligation ak benn objectif muy yokk réew mi ci koom-koomam nga xamee ni lii référence du ñaata ñaata transhumant laa am mhm. réew mu jakk du ñu de du ñu ndamoo diw fekk si ndama mhm. réew mu jag la ñuy ndamoo mooy téeméeri junne emploi laa créé dëgg la deux cent mille logements laa créé mhm. secteur nangam ci BTP tey jii am naa ay usines yoo xam ne ñoo may tabaxal kër te duma ci sonn lépp loo xamee ne industrie légère la am naa ko maa koy fourniral sama bopp ba tey jii doyal naa autosuffisant naa maa ngi xool ci biti réew mu jag moo waroon a tax tey jii bu ñu demee ba nga xamee ne contre saison dafa am ci waalo bi ndox mi ñëw ndax Covid bi jot na ña waroon nawetaan si nawetaanu si ñu am benn jafe-jafe muy un ñu wëlbatikuwaat dem ci culture nawet bi dem ba ci biir euh, ay ay kañaaki ay insectes ñëw fekk leen fa seen mbir yëpp yàqu réew mu jag dafay am sérieux que bu ñuy quantifier ci statistique ñu def lu wax tey jii dañu dégg ministre bi mu ne deux cent hectares ci trente deux mille hectares rek ñoo fa yàqu alors que à Ross Béthio benn sëriñ rek yàqule na deux cent hectares nga dem Ronkh huit cent soixante dix neuf huit cent quatre vingt dix hectares yi nga xam ne def nañ ko. trois cent vingt six yi yàqu na nga dem Ross Béthio lu mat ëpp trois cent hectares yàqu na fa comment un ministre de la République nga mën a am décalage bu jéggi dayoo noonu alors que la distance entre Dakar et le point bi nga xamee ne moom ngay wax ni identifié c'est deux cent trois cent kilomètres comment est-ce que un peut penser que ni mën nañu génn ci sous-développement su fekkente ni itte ak proximité bi ñu war a am nga xamee ne tey jii bu ñu demee lebi ay ay tracteur ki moissonneuse sa sa Inde dañuy ñëw wala sa Brésil dañuy mhm. ñëw jox ko ay groupe producteurs ñi nekk ci tuuti ci suuf ñu fàtte leen ba yenn tracteurs yeeg yooyu ma ngaa teeri Nouakchott wala ma ngaa teeri faneen ce sont ces problèmes là ajouté ma xamal leen ni file non seulement pour le ministre et en direction de lui na góor góorgóorlu daw fekki waa waalo yi parce que génn nañu ci situation boo xam ne mën nañu dimbali seen bopp ils sont tax ku mën a dajale ñaari récolte yoo xam ne benn baaxu si bu ñu gaawulee ci yow fitna dina la dal te non seulement waruñu dem pour médecin après la mort mais dañoo war a autonomiser nit ñi jox leen ay jumtukaay yoo xamee ne dinañu mën na régleel seen bopp su fekkente ni ñu nekk ci biir kaw gi gisatuñu seen bopp foofu ñu nekk ci booru géej gi gisatuñu seen bopp foofu ñu nekk ci dëkki taax yi gisatuñu seen bopp ci réew mi mais fan la ñu jëm